jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yu ñuy seetaan à travers partout dans le monde rawatina yéen ñii abonné si site bu mag bi di Galsen People tey na ñu seet si tey na ku ñu seet si nag euh, kenn dootu ko présenté yàgg nañ ko dalal fii si chaîne bi ñu koy wax maam Cheikh borom karaw gi borom karaw gi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan. maa ngi lay fay bu baax a baax di ñaanal bu baax baax di ma ko daan waxee rek Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murid yàlla na ko yàlla yàggal te ko. mbooloom uh, xalif seen yëpp rek barke maam Serapha suñu daxa di faal yàlla na fi yàgg loolu te wér mm. di ñaanal jàmm ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm mm. barke sëriñ bi mm. euh, jërëjëf sëriñ maam Cheikh Lo euh, kàddu yi am na solo lool xam naa rek dañuy daal di dugg si programme bi euh, suñu première question rek ñu daal di koy indi si xam-xamu alquran lan mooy xam-xamu alquran sëñ maam Cheikh. waaw xam-xamu alquran de fa isa xaraxta alquran fastaiz billahi mina shaytaan rajim loolu ci ne. nag seytaane sax boo jàng alxuraan boo waxut bisimilah rahmaani rahiim wala waxu onze billahi min rek mën na laa yàqal fàttali leer yi ba leer yi du dugg waaye loolu danga nga ciy déggee ne kon bu yàlla bi téere bu màgg la boo xam ne képp ku am sobe waroo koo jege waxuma nag di ko laal sobe nag waxuma ci ci biir ak ci bitti muy téere bu màgg boo xam ne maa huwa shifaa'un wa rahmatun lu mu ca teg lil na day saafara bépp jàngoro waaye nag ki gëm maanaam alxuraan moom ki gëm rek la mën a jariñ ku gëmut daanaka jëru sax nga koy jàng ndax du jariñ dëgg la nag mën na lépp waaye lépp rek day dépendre ci nit ki ak sellam ab taxawaayam bu ko defee rek lu mu ci jëfandikoo lu mu tuut tuuti ah, loolu alxuraan di wax naan maa faratat na fil kitaab min shay'in donte na benn aaya la sax boo ko jëfandikoo rek day barkeel waaw bu ko defee maanaam ah, ah, da ngay gis léeg-léeg sax nit day bind lim bu bari ci alxuraan bind ci lu bare bare da koy jëfandikoo waaye day mel na du gis dara waaw lépp rek ay mbir la na muy demee doo ko xam waaye li ma bëgg wax foofu rek mooy. nañu delluwaat ci yàlla te xam ne alxuraan ji lañu yàlla wàcceel mooy lépp mooy li nga xam ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addu'a silaa'ul mu'min ñaan mooy ngànnaayul jullit ngànnaay la nag mooy alxuraan waaw ngànnaay mooy alxuraan te xulaas bi rabbil falax xulaas bi rabbin naas képp ku bëgg muslu ci soytaane ak ab noon ak lu mu mën a doon ci àdduna wallahi la enchimie la si waaye li ma la wax léegi rek lépp dafay dépendre ci sa ngëm-ngëm ak sa tolluwaay waaye fàllaxe ak naas yi lu mu mënatu ci wàllu kaaraange amul waaw lépp la man alam nasrah mooy sortu saraxe maam ku bëgg ubbeeku ku bëgg am bayre ku bëgg am ndimbalu yàlla ndax ci biir mi ngi naan fa inna ma al usri yusra inna kon loolu wax na foofu wax bu rëy saa yu neexee rek jàppal na la naqare kon luy neex di continuer amul fenn waaye saa yu naqaree rek maam jàppal na day day neex ndax luy naqare di continuer rek amul kon loolu lépp ay ay junj la yoo xam ne ah, xam naa détail bi day gudd dañ ko yemale foofu beneen yoon rek waaye alxuraan daal mooy lépp moom ci ab jullit barke maam Cheikh Rafal Euh, macha allah sëriñ maam Cheikh Lo kàddu gi am na solo alquran mooy lépp li nga xamante ne doomu aadama mën na ko jëf jëfandikoo xam naa dañuy ñëw suñu première question rek muy wàllum seet. waaw seet moom lu am solo la lu am solo la ci nit ki ah, lépp lu muy def rek mu gëstu ko ci biir ak ci bitti mooy daahir ak baatin ah, loolu dafay am solo surtout boo nekkee ci place di liggéey wala nga nekk ak sa borom kër wala nga nekk sa soxna wala nga bokk ak nit di liggéey war nga xool. Euh, ndax te si am loo xam ne kumpa lay doon doo ko mën a xam waaye am na ñu yàlla may ci wàll googu moo xam ne lépp lay dugg rek moo xam ne dangay dugg ci néegu sëy wala nangam ak nangam maanaam euh, lislaam may na la nga def listixaar wala yeneen façon seete nga fi tamit yoo xam ne dafa xaraam man damay wax dëgg ji yoo xam ne dañ koo sib ci ab jullit xam ne yooyu yëpp ay natt ay nattukaay la yoo xam ne képp ku ci xool rek suñ borom mën na laa leeralal loola ngay xool moom leer naññi waaye li am solo rek mooy en tout cas daal képp koo xam ne am nga lu la réer ci sa bopp am na lu la ump ci sa bopp am na loo bëgg a xam ci sa bopp ak lu mu mën a doon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam boo ñu joxee sa tur ak sa sant jox ñu sa date de naissance foo mën a ne ci réew mi boo ñu woowee téléphone rek incha allahu rabbi danañ la seetal seet boo xam ne da nga ci gis sa bopp bu baax a baax seet boo xam ne man li may wax rek dinaa la wax loo xam ne moom kenn mësu ko wax tey boo ci nekkee di di insister ak maanaam yow loolu mën na laa indil problème toujours rek loolu moom suñu borom defal na ma ko dama lay gis am na yoo xam ne sox dama ko wax xanaa nga nga nga nga nga sëkkatal ma na ma waxal mm. waaye bu dul loolu sax ya may gis dëgg dëgg dëgg dëgg du ma ko wax parce que amulul la intérêt mm. fexeel ba sa aajo faju rek macha allah. macha allah sëriñ maam Cheikh Lo mbokk internet yi képp ku nga xamante ne bëgg na seetlu seet bu leer boo ñëwee si borom karaw gi mu wax la lépp incha allah xam naa dañuy jaare suñu beneen question rek muy wàllum cat. ak nit ku ñu liggéey pour mu dindi ko noonu suñu maam solo nan lay nan fan lay jaar. waaw nit ki nga xam ne dafa ame cat wala ñu liggéey ko wala sax ma am ay rab ndax lu ci ne euh, kii boppam la cat ak rab ak liggéey lu ci ne euh, point la boo xam ne euh, partie boppam la ki nga xam ne dafa ame cat mooy li ma la waxoon ci alxuraan des nañ nu niñ koy liggéeyee boog laa lay wax faatixatul kitaab ba'da kulli aaya wa in yaakaar dala si ne kafaro lay si loxoon nag bàpp san la ma koy booleel defal la ko xàmb nga sangoo ko bu ko defee dinaa la jox benn ndomb boo xam ne ndomb gi set gaaw lay doon bu soob yàlla cet dama koy dindi ci yow ba mu set wicc dama koy sampee comme bu la dëgg jamee maam noonu mu mel maam ni ñuy sampee dëgg gi ba mu deñ ci sa tànk bi maam cet nan laa koy sampee ci nit cet loo mën a am ak lu ak lu mu yàgg-yàgg sa yaram dama koy dindi mu set même bu dee liggéey liggéey bi ku la ko mën a def même bu ñu ko defoon ci ndox ak ku la mën a liggéey moo xam kat la moo xam ku mën a doon ci àdduna liggéey bi jaaxal la wallahi asim boo ñëwee ma dindi ko te ci basmala laa koy defee ismulahil ahsam boobu mooy bismillahi rahmaani rahim waaw ci laay dindee loolu nga xam ne dama la koy dindi ba mu set wicc wicc yow yaay yaay njëkk wax ne ma li nekkoon ci man dañ na ndax da nga yëg ak woyof goo xam ne day nekk ci yaw incha allah waaw macha allah sëriñ maam Cheikh Lo kàddu gi am na solo lool xam naa dañuy jël suñu beneen question rek muy wàllum papier sëriñ maam Cheikh Lo nit nekk na bitim réew def fa 15 ans vingt ans bëgg ñibbi si mënul fexe ba am papier euh, ndaw yi tamit ñu ngi Sénégal euh, bëgg tukki bëgg dem euh, dimbali seen waajur yi mais bu saa suñ demee si ambassade yi di ñaan papier di ñaan visa day métti trop si ñoom ñuy lekk seen xaalis tout temps boo ñëwee sëriñ maam Cheikh fan lay jaar ba dimbali la ba am papier. waaw wax nga dëgg ah, li may jàmbat loolu bari na ci wàllu papier. waaw loolu nag xëy na réew mi ñu nekk muy réewum Sénégal mm-hmm. moo xaw a metti mm-hmm. ci yu bari waxuma la papier yi mais fii lépp loo fi lijjanti te day mel ne sax dëkkoo ci réew mi day mel ne dëkkoo Sénégal mm-hmm. day metti ci yow te yow loolu yow yaa ko moom dañoo war a ñëw rek yombale la ko waaye eh, moom jeexul te am na ay façon xam yoo xam ne maanaam ci yooyu rek lay dox comme li ma la waxoon sànq ne la ah, alam nasrah ci la ñuy liggéey loolu képp koo xam ne waaw man sama lépp alxuraan la waaw teewul nag am naa yeneen façon xam-xam yoo xam ne comme nit ñi yemuñu te ku ne ñëw ci yow ku ne ak la nga koy defal waaye loolu daal li ñu koy defee ci wàllu papier moo xam visa nga bëgg moo xam papier boo mën a dëgg moo bëgg moo xam da nga bëgg taxul taxawal entreprise wala yaa xam papier bi nga bëgg ban façon papier la man loolu xaw sa yoon ma yoon ne ko ci mais en tout cas dinaa la ci defal loo xam ne incha allahu rabbi foo dem di déposer visa maam dana jàppandi dana jàppandi ci yow dana la ko may ci may gu yomba yomba waaw ah, am na ci aaya boo xam ne ci alxuraan see jaalallahu baxda ah, usra nga xam ne loolu ak yu bare bari secret yoo xam ne daanaka du ma koy faral sax di wax ci kii bi waaye ku papier tax a jóg daal ah, boo ñëwee incha allahu rabbi danañ la teg ci yoon teg la ci accès waaye nag man li may wax faral toujours rek samay mbir daa yombut waaye nag damaa yor lu baax moo tax te lu baax du yomb waaye ndax man bu may waxee yow nga insisté mm-hmm. wala ngay kii rek mm-hmm. dama naan la bàyyi ko yaa ma soxla mm-hmm. yaa bëgg gunge borom biir buy daw nag jurut daw bu dawut moom bul daw ndax moom bu boobaa lay tooy ci moom lay jóge waaye daal képp koo xam ne loolu yittil na la daal te yàlla na laa taw fi xale boo ñëwee ñi dimbali la te yàlla tax incha allah ma macha allah sëriñ Mame Cheikh Lo képp nga xamante ne bëgg na papier rek euh, boo ñëwee si Mame Cheikh Lo mu faj la say ajo xam naa dañuy jàll suñu beneen question rek ñu bari ñu ngi laaj nag surtout commerçant yi muy bayre jaay bayre bayre bayre boo xam ne day ànd ak wërsëg ànd ak kaaraange. Mm-hmm. waaw bayre lu am solo la. waxoon naa ko fi bayre suñu gaay yu baax yi sax dañu am bayre suñu sëriñ si ñu yaakaar sax dañu am bayre dama ciy cité rek ñaar ñaar mm-hmm. loolu kay dañuy ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa xaada loxo law maxtaara loxo daa am bayre waaw daa am bayre waaye bayre la boo xam ne yàlla ko ko defal waaw bayre mooy nit ñi xam la bayre mooy nit ñi bëgg la bayre mooy nit ñi am ci yow ak cofeel bayre mooy loo xam ne nit ñi buñ la gisee euh, duñ ànd ak seen sago mooy yaa leen di gënal seen ndey yaa leen gënal seen baay lu ñu am mën nañ la koo jox te toog lu nu jur tuddee ko loolu mooy bayre bayre da daa bari ay façon mook ko siiw bokkut nit ki mën naa siw te du am bayre waaw ba tayit mook di mos di am dara di am xaalis bokkuñu nit ki mën naa am xaalis di mos di tedd te amul bayre siwul kenn xamu ko waaye mi ngi tedd waaw loolu la ñëpp bëgg nag man ne moom laa bëgg nga gis koo xam ne mooy li ma la wax lépp day boole ñë yëpp nag day am lépp waaw kon suñu gaa yu baax yi bari ñoo xam ne waaye moo ci tuddee sëriñ bi rek day ambaale ñëpp ndax moo ndax moo jiitu ñëpp waaw kon bayra lu am solo la commerçant bi commerçante bi yëpp maam bayra la soxla ndax bu amul bayra du dem hmm, kon daal lu mat a wut la rawatina ci koo xam ne dafa yor marchandise ak marchandise mu mën a doon mu bëgg caa mu bëgg caa am tawféex maanaam bëgg caa am maanaam aw nit mbooloo wuy ko sa wala mu bëgg am alal maanaam lay tax mu am loola mooy day wut bayre bayre bu saf sap léegi nag man loolu ay càngat laa lay jox waaw cangat yoo xam ne am na lim ci basmala mooy bisimilah rahmaani rahiim moom laa lay defal bu la ko defalee ci kàttanu yàlla 24 jours nga koy sangoo boo ko defee bu soob yàlla. da nga siiwoo siiw siiw goo xam ne da nga am bayra façon bayra boo xam ne boo moytuwul da nga ñëwaat ci man wala nga woo ma téléphone ne ma sëñ bi wàññil affaire yi ndax doo am jot waaw dafa dis gan gan gan bayra daa am bayra bu yam nag am na waaw mais bayra bi gën moom mooy bayra boo xam ne nit ñi buñ la gisee duñ am ceew sago mooy nit ñi buñ la gisee day mel na sëñ bi buñ lay jox duñ ko tay buñ lay défendre duñ ko tay man ngaa nekk ci ak jubadi sax wala nga nekk ci ñu xam ne yow mi normaloo sax waaye ñoom yow yow lañu àndal. mais xanaa bayreeb day ànd ak kaaraange. Ah, man du ma def loo xam ne du ànd ak kaaraange man du defal nit bayre bàyyi ko noonu ma dem. Mm-hmm. déedéet xanaa kay nga dem ba yëf yi nga amut affaire bi sonal la. Mm-hmm. moom amutoo jot nit ñi sonal la witt nga ñëw ne ma wàññil bayre bi. mais pour kaaraange rek moom moom lu la neex dugal lu la neex defal. Mm. force kenn mënul dara loolu kenn mënu si dara. waaw waaw kon loolu daal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Ah, waaw waaye incha allah. macha allah sëñ Mame Solo kàddu gi am na solo lool képp ki nga xamante ne bëgg na bayre ak ak kaaraange rek boo ñëwee si borom karaw gi mu boo leen jëflantee rek sa aaju na faju incha xam naa dañuy jàll problème boo xamante ne moo sonal euh, ñëpp mën naa ne moo sonal jeunes yëpp presque parce que jamono ji koo gis mi ngi néew kàttan mi ngi am faiblesse sexuelle di am impuissance euh, loo ñu mun a wax si faiblesse sexuelle lu koy indi ak lu koy saafara. waaw xam nga euh, boobu. mooy li ma la rek lislaam sax sëy bu bari sëy bu bari maam jël rapport bu bari dana waral néew kattan di def rapport sexuel lu bari te wallaay la ancien ci nit jàngale ci borom xam-xam yi ku ci mel ne sëriñ Soxaay bu Mbàkke radiyallahu taala anhu waaw mu ne semaine bu ne boo ko ci mënee def benn yoon boo bare ba bari ñaar maam loolu da nga am wér da fi yàgg te mën ngaa dem ba ba am quatre-vingts ans juróom-ñett fukki at nga ngay am kàttan waaye bu fekkee da ngaa bëgg a sa dund gi maam maam di chaque jour bëgg def quatre wala cinq wala six sëñ bi yow mel na bàyyi ma yi sax sax defatuñ yooyu bàyyi ma nga xam ne amuñu xel ñoom seen bakkan rek lañ topp defatuñ yooyu loolu ku koy def loolu bokk na ci liy wàññi kàttan léegi boo defee nga naan dama ndoxum siteeg nangam ak nangam dañ ma fekk yow ya yaa yóbbu yow yaa jeexal sam ndox maa ko woo yow li nga yoroon lépp yaa ko vidé waaw am na tamit yenn façon waaw fooy sa bopp di mballoog yooyu xeet yooyu yëpp da koy indi am na boo xam ne tamit rab a koy def rab dana téye ngóoro waaw rab dana téye ngóoro nit ki tamit danañ ko liggéey waaw yëpp maanaam mais lu mu ci mën a doon rek ñun boobaa dañ koy dañ koy xool ko xoolee danaa xam lan moo tax nga néew kattan waaw man du ma dugg ci dara te xooluma ko ndax dama xam lan lan moo waral loola waaw la wala nangam ak nangam waaye lu mu ci mën a doon rek boo ñëwee man ah, ab biteel laa lay jox biteel ba maa koy liggéey ba mu àgg jox la ko nga jëfandikoo ko boo ko jëfandikoo incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla da nga am kàttan ba ni ngay incha allahu rabbi dootoo ñàkkati kàttan waxuma laa nag naan da ngay tëlee incha allah. macha allah sëriñ maam Cheikh Lo borom karaw gi eh, bokk na yéen ko dégg noonu képp ki nga xamante ne dafa new kàttan wala mu am genre problème yooyu wala muy bañ eh, si giir dundam mu dal ko boo ñëwee si borom karaw karaw gi mu fajal say ajo xam naa rek euh, waxtaan bi jeex na dañuy jàll si question actualité yi rek euh, ñu gis euh, audio nga xamante ne appel MC ak kii di Adji Sarr ñu ameloon fan yële ba audio yi instant yi mi ngi si dëkk bi yëpp ñëpp ngi xëy déglu di xool di wax seen avis mu mel affaire bu complot la comme que yéen ay boroom xam-xam ngeen tamit ay porte de voix ngeen suñu am soxla ñu bàyyi la nga wax sa xalaat ci ajo bi noo ko déggee ak noo ko xalaatee. ci problème mu boobu moom naka jekk man yàgg yàgg naa ko contre ndax damaa xam ne inna kayda kunna azimun la alxuraan wax pexem jigéen lu màgg la tax ba li jógee rek ca début ba man waxuma ko waaye dama ne lii ay sos la ay pexe la pexem jigéen nag lu màgg la waaye nag lu dul dëgg du yàgg aw fen moom mënut a sori mën na riir nag maanaam am waaye yàgg-yàgg rek loolu suñ borom a ko wax de waaw dëgg mën naa mën mën mën naa mën naa tuuti fondement bi mën naa tuuti sew lool waaye lu ñu gën a dem rek muy gën a wane boppam dem ba maanaam day nasaxal fen yëpp loolu moo dal maanaam Adji Sarr Sonko nag ku yàlla dimbali la ndax tuumaal na nit suñ borom taxaw seetaan ko tuuma ja mel na dëgg te du dëgg suñ borom leeralu ci dara taxaw fee seeraan kon moom day mel ne kon suñ borom mi ngi koy taxaw bu ko xamee ak bu ko xamul waaw MC Niass nag man ca ci benn côté ah, wallaay maam boo doonee kilifa Cheikh Ibrahim ñëpp xam ko ci lislaam ak fi mu fi mu toll ci réew mi ak li ko yàlla may nga doon doomam dëgg yàlla te it soxna si nee na ci yow la jébbalum yaay yaay sëriñam waroon nga koo mën a suturaal euh, am na yoo xam ne sax waru leen ko woon a seq wala bu nga demee ba di ko waxtaanee di ko seq yéen ñaar mu doon antar yéen ñaar képp lay doon loo ko ca mën a dimbalee nga dimbali ko ca yadd ko génne ko ci mu nekk teg ko ci accès te loolu entre yéen ñaar rek lay am waaw ndax koo mënulut fii dara koo mënut a suturaal fii koo mënut a dimbali fii est kon loolu bu ëllëgee nit ñi mën nañoo jaaree foofu sax daan na kon sëriñ si est ce que ñoom daanaka doy na ak koo xam ne maam da day xam nga hmm. yooyu daf te fekk maam sëriñ am na bu baax a baax hmm. maanaam kilifa am na hmm. am na ñoo xam ne dañ lay suturaal fii ëllëg suturaal la yow da ngay gis taalib sëriñ boo xam ne day am taalib bu doy war bu yéeme nga xam ne wallaahi la asim bu ëllëgee yaa koy jàppale waaye defalut yàlla dara suñ borom am na ñoo xam ne suturaal na leen bind na leen loolu mu naan am na ñoo xam ne ëllëg dinaa leen rus bu ma bëggoon a def dara sax duma ko def waaw koy waaw waaye li may defale foofu daal mooy nañ xam ne euh, ay transféré ay audio yooyu ñàkk sutura yooyu lépp luy indi fitna ab jullit daf ko war a daw waaw waaye daal liy xew dëgg-dëgg ñëwagut li ma gis ci réew mi wallaahi al asimi la si ci kanam tuuti hmm. réew mi dana jaxasoo moom hmm. ba billaahi waaw ndax yàqu yàqu yeeg coow yeeg doy na waar waaw waaye mbirum aji saar mi moom léegi tey maam mu tege ci suuf maanaam nit ñi fàtte ko sax mu jax tàkk ndax yàlla leeral na lépp waaw waaye nag daal li ma koy xamal daal mooy bu paree ci lii hmm. na dem jéggulu ji yàlla waaw te fexe tege ci yoon bu baax yaa ngi ak képp ku mel na moom nag waaw am na ñoo xam ne yàlla moo teg ci ñoom loxo kenn mënu leen a yàqal waaw waaye Cheikh Bara Ndiaye it na xam ne ah, audio yi daal mënoon naa bañ a tas waaw ki la wóolu ba jox la ay secret dimbali ko rek. très day dem waaw kon affaire bi lépp lépp train bi agent nan la fay demee kon maanaam affaire moom ci complice bi la daal waaw parce que comme xam nga li nga xam nëbb ko rek bu ñu la fay ay millions sax bu ko wax ndax day taw wa taqoo fitnatan laa tusiibanna llazina zalamu minkum xaasa moom ab sëriñ la nit ku baax la kon am na yoo xam ne bu ko daree àdduna jaral waaw waaw ndax moom am na bës ba noppi te it borom xam-xam la tam mi ngi tedd nit ku baax la kon yooyu daal. Euh, maa ngi daal jégalu te xam ne daal euh, réew mi daal li ci kanam moom wallahi al asim man man de yàlla bu ma fekk ci réew mi waaw dana ma fekk ci àdduna nag bu ma fekk ci réew mi Sénégal waaw man moom deewaguma waaw kon fu mu nekk nii mën nañ ne ay dee yu bëri war na mën a am. ay waxumal ay faatoog ay maam wax yu ñaaw ak ci entre kilifa yi maam xam nga ñu am ay personnalité yoo ko dana jógee foo xam ne fooguñu ko woon woon waaw te lii ma la wax bind ko nga teg. danoo doy waar lool wallaahi la asimila si laa ilaaha illa huwa mm-hmm. wasalaamaaleykum euh, balaa ñuy tàggatoo rek xam naa dañuy ñëw suñu dernière question rek muy combat bi am digganteeg Balla Gaye 2 euh, wax nga ma si suuf na kuy daan mais xam naa dinga nga ko wax mbokk internet yi kan moo jekk si combat bi. waaw fi na Boy Niang moo moo moo moo ko jekku mm. Boy Niang fi mu mm. moo jekku sa waay mm. waaw foog mu defaru jugaat ci boppam xoolaat ay cumikaayam Balla Gaye si jekku na ko waaw jekku nag ak ndam du benn nit ki mën nga koo jekku ci gàllaaj jekk jekku ko ci entraînement mm-hmm. waaye yàlla jox ko ndam loolu dara mm-hmm. waa ndam moom ak loolu du benn waaye en tout cas bi may wax yow ni moom mm-hmm. Balla Gaye ngóor si jekku na ko xam loolu bu baax a baax a baax a baax te gëstu li ma ko wax bu baax a baax waaw ndam li nag moom loolu du ma ko wax kenn <laughs> waaye ku ñëw ba fi man ñu toog entre man ak yow dinaa la ko wax. macha allah macha allah borom gi looy tàggatoo. li may tàggatoo mooy réew mi ñu ne. yàlla def fi jàmm ndax jàmm moom ci la lépp xaj bu jàmm amul moom maam maam fitna rek kay am te jàmm nag li ko mën a maye mooy jaamu yàlla comme ni ko Serigne Touba daan waxee jàmm jaamu yàlla barab buñ ko du defee bu ne bu fa jàmm yu njëkk yee du fa mujj kon buñ bëggee di am jàmm nañu yéenante jàmm di def jàmm di wax jàmm tey jàmm yàlla